mbokk yi ñuy seetaane ci Leral TV ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ñu ñëw fii eh, nga xamante ni moom mooy Touba ci wàllu magal bi xam ngeen ni ki le 4 bii nii eh, la ñuy amal magal Touba ci altine bi eh, ci boobu boobu magal ñu ñëw waxtaan ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa comité d'organisation ndax xam ngeen ni ki bu magal bi jaaree yoon naam am dañ jox xam ñoo xamante ni tamit joué nañ ci rôle bu am importance muy comité d'organisation bi moom ay pàcc yi nga xamante ni ay pàcc yi am solo la rawatina li nga xamante ni mooy wàllum assainissement ndax Touba Touba ko ko wax wax li nga xamante ni mooy inondation bi rawatina ren bi nga xamante ni màggal bi tombé na ci weer boo xamante ni daanaka weer buy ëpp taw la ci Sénégal muy euh, mois d'août euh, ak mois de septembre diggante ñaari euh, mois yooyu la alors euh, ñuy laaj li nga xamante ni moom mooy ci seen wàllum liggéey euh, fan lañ ci toll ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel mais aussi am benn comité boo xamante ni mooy comité d'assainissement ak euh, li nga xamante ni moom mooy gérer wàllum électricité ak ndox ñi nga xamante ni ñoom ñooy gérer wàllum communication ñoom ñëpp ensemble ñoom ñooy gérer li nga xamante ni moom mooy wàllu màggal bi bu demee ba liggéey bi rafet ñii ñi ku ci nekk mën na ñëw def sa liggéey comme ni nga ko waree yaakaar naa ñooñu tamit bokk nañu ci ñi nga xamante ne dañ ci joué role bu am importance ñu sëkk ñoom waxtaan ñu xamal ñu fu liggéey bi toll. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Moustapha Gaye bokk ci commission communication euh, nekk présidence commission accréditation et presse voilà donc euh, leen nuyu bu baax moo leen téléspectateurs yu leeral TV màggal gi moom comme ni ngeen ko gisee rek communication daf ci nekk euh, am pàcc bu am solo boo xam ni moom mooy gàttandu màggal gi ànd ak màggal gi après gunge ko donc ci gàttandu googu mën naa ne ci commission bi ni mu composé woo ci ñetti fànn ñetti pàcc la composé benn bi di accréditation ñu dal journaliste yi beneen bi nekk li nga xam ne mooy intit euh, moo xam lépp loo xam ne contenu la ak support yoo xam ne logistique ñoom ñoo koy yor gën a féete nag côté média euh, beneen bi di hébergement presque waaye soo déggee commission communication dañuy wax communication et culture donc culture bi nekk nag contenu culturel et culturel maanaam lépp loo xam daal ci diine la jëm euh, moom itam waa Rawdu Rayaahiin sekk ko comité d'organisation bi euh, loolu mooy sababu culture bi Euh, ci gàttandu googu ma waxoon nag mooy comme buy màggal gi jege gis nañ ni souvent dañuy def ay plateau ay conférence ay table solo yoo xam ni boole ci ay borom xam yu yu bari yoo xam ni dañuy waxtaanee sëriñ bi waxtaanee màggal gi waxtaanee itam diine bi waxtaanee société bi ngir waajal nit ñi ñu xam lan mooy sababu màggal gi loolu nag nekk lu am solo euh, yooyu nag euh, def nañ ci ay plateau yu baree bari xam ne actuellement euh, mi ngi mi ngi daw mi ngi yaatu beneen bi itam nekk comme niñ ko waxee rek ci wàllu accréditation xam ne euh, bu màggal gi desee weer la ñuy envoyé email mbooleem journaliste yi maison de presse yi fi nekk ñu inscrire dugal seen accréditation bu ñu dugalee nag seen accréditation mën a euh, xool badge yi nga xam ne moom leen leen <coughs> attribué beneen bi itam bi euh, commission NTIC bi ma doon wax moom it moom benn support lay doon boo xam ni mboolem ñi fi ñëw ndax euh, ñi dalal gan yi bokk na ci ay kër Sëñ yu bari ñuy nag yoo xam ni kër gu ci nekk itam day dispositif bu ñu fay ngir gan yi fay nekk mën am xam lan mooy màggal gi lan mooy continue bi donc comité comité boobu moom moo leen gunge di leen euh, woo ci ay yenn interview comme ni ngeen koy defee nii. di leen xamal itam màggal gi waaye aussi di leen wan li xew ci yenn penc yi yu xew ci kër sëñ yi ak eh, ni màggal gi ñu muy demee yëpp ñoom ñu koy am benn bi également di ñi nga xam ñoo yor hébergement bi ñoom ñooy dalal suñu mbokku yi ngir ñu gën leen a faciliter maanaam seen seen liggéey yaakaar naa loolu communication bi ñoom ci ci loolu lañ gën a féete eh, beneen bi si mooy communication dafa nekk commission bu transversale mooy képp koo xam ni yor nga commission rek war naa xool li ngay def mooy mën a yaatal xibaar yooyu euh, bu jëlee misaal ci commission santé am na ay capsule yu ñu xam ni euh, ngir nit ñi bàyyi xel hygiène bi nga xam mooy am ci wàllu wér-gu-yaram ki am na yenn xeetu euh, tawat yoo xam ni li koy indi yëpp ñàkk set la gis nañu siburu tam dafa bari sibiru bi tey boo xoolee mu rek mën na solutionné jafe-jafe yooyu kon itam am na ci ay xibaar yu ci jëm am na feebar yoo xam ni euh, Crimée du Congo euh, yooyu am na fi nga xam ci jur gi lay jógee yenn euh, ci olof kuttu lañ koy wax boo xam day jógee ci jur gi mën a laal nit ba ba nit ñi jàpp yooyu itam ñu ngi ci doon communiqué donc boo xoolee daal. communication ci jamono yi ñu toll ci liggéey bi foofu la foofu la féete daal. Euh, maa ngi tudd Mourtada Bousso bokk ci commission hydraulique électricité pour comité d'organisation grand magal boo waxee màggal moom day mel ne ndox mooy màggal ak courant daanaka mën nañu wax ne mooy màggal mais nag euh, ku ne xam ne ne Touba tam jafe yi am na ci ndox mi lool euh, ak jafe-jafe yooyu yëpp itam nag teewul ñu ngi jànkuwanteeg moom. di jéem a taxawu pèlerin yi ba li ñu bëgg ñu man koo am xam naa mënuñ leen satisfaire à cent pour cent waaye danañ ci def la maximum possible incha allah bu ñu tàmbalee ak léegi itam liggéey bi xaw naa xaw naa jafe waaye yàlla mi ngi defal sutura ba am nañ yaakaar ci ne daal ñëpp mën nañ fa nekk nekk bu rafet ba dellu kër benn jafe-jafe doon incha allah ñu ci sant bu baax baax président de la république ba fi jëm rek yabal na fi ministre de l'intérieur mu indi fi ñaat oto yoo xam ne ay oto sapeur ngir ñu may waa dëkk bi ndox ndax xam na jafe-jafe yi nga xam ne am na ci dëkk bi ci ndox seetal na yooyu benn bu nekk trente mètres cube te toll na ci ñaar fukki seetal yoo xam ne sax ci ci Tuubaa lañ ko daloo mi ngi soog a mi ngi soog a mi ngi soog a ñëw ci ci ci dëkk bi euh, moom itam def na ci ay jéego yu am solo moom itam appuyé na bu baax a baax waa Oxoor ñoom itam ci carburant yeeg yooyu ngir rek ñu mën a taxaw pèlerin yi bu baax a baax ci wàllu ndox organisation moom du du yomb ci nga am am ko eh, ni ñu ko bëggee à cent pour cent waaye nag soo amee la maximum possible rek da nga mën a muñ li ci des te am na yëf tam mi ngi dox bu baax baax yàlla ñu ngi ko seexal tam ñu ngi def liñ man nit xasee def la man rek la xam ne fii la man maanaam lan wax dëgg yàlla ñoom ñi ngi def liñ man ñun ñi nga xamante ne bii ñooy organisé tam liñ man lépp ñu ngi koy def ngir benn jafe-jafe bañ a am incha allah mbooloo moom fu ñu dajee su fekkente ne ay taataa ak yu mel noonu ma ngi koy ak taw mën naa jural jafe-jafe ñi nga xam ne ñoo koy daje waaye tam ñi nga xam ne ñoo yor wàllu assainissement euh, képp foo xamante ne bii ndox ma ngi fay taaka def yëf ñi ngay xool nu ñu doon defar rek ba ba mën a ba a satisfaire population waaye wax dëgg yàlla euh, nawet moom ku ci màggal ku ne faaw nga da a dund nag ndox ndax ndax nawet moo bindoo noonu munoo munoo ndax mën nañ fi ñuy waxtaanee fii bala ñoo daaneel rek suñ borom mën naa andi tawam te bu boobaa defoon day mel ne defoo kon dañu xam ne lii moom suñ borom la soob ñu màggal ko ci nawet kon nag jafe-jafe boo xam ne taw koy indi rek dañ ko war a mën a muñ incha allahu taala te courant bi tam wax dëgg yàlla Senelec euh, am nañ ci taxawaay yu am solo am nañ ci taxawaay yu jéggi dayo sax yoo xam ne wax dëgg yàlla mën naa wax ne euh, màggal jii moom liñ ci def sax mosuñ ko def ci màggal loolu tam lu ñu leer la wax dëgg yàlla jafe-jafe moom bëriwul daal mën naa wax ne ci wàllu courant bi moom itam maa ngi tudd Mourtada Joxaane bokk ci sous commission accréditation presse xanaa di fas yéene leeral rek di nga xam ne dañuy topp leeral ci yëpp fas yéene leeral euh, ci li nga xam ne moom la ñuy euh, liggéey ci wàllu accréditation presse. déjà on a fait des demandes des information yoo xam ne c'était adressé ci presse bi yëpp national ak international ñi nga xam ne ils sont intéressés couvrir événement bi dañu ñëw accrédité wu ci plateforme bi donc euh, quand on presse bi ñu si bëri ils se sont inscrits donc disons on a eu des demandes de cent euh, batch yoo xam ne demandé nañ ko euh, journaliste international ak national ci sous-région bi yëpp ils ont ils ont demandé cent mille cent batch donc cette année on a eu à attribuer environ cinq cinq cent cinq cent batch di weesu bon dañoo nekkoon ci benn contexte muy ñoo jógewoon ci Covid bi donc c'était c'était très limité ci contexte bi ñu nekkoon contexte sanitaire bi année yu weesu on avait à peu près trois cent budget à distribuer donc cette année y a eu une évolution yokk nañ ko espérant que fii ak année yi ñu jëm dina gën a yaat depuis hier on avait informé que le à partir du jeudi 31 dañu commencé yi donc depuis hier beaucoup d'organes sont venus récupérer le le actuellement organes yu bëri sont venus récupérer les bâches et commencer à, à faire le travail. sens bi màggal moom màggal boo ko doon xool euh, ni ñu ko mën a waxee rek euh, dafa am ay ay ay sabab daal ndax mën nañ ko jël ci sabab boo xam ni ci zaahir la sababu baatin boo doon xool origine bi màggal ci liñ jógee ndax sëñ bi ñëw na fi ci contexte boo xam ne contexte bu particulier la boo xam ni réew mi nekkoon nañ waaye moom mu ñëwoon suñu bokk dafa amoon kilifa boo xam dafa jógee bitim réew daale ay ay yëfam daal ni fa la ñuy jaar euh, sëriñ Touba nag moom moom ngir moom boppam ak lim def yàlla muy muy buuram moom dafa jël option boobu fi ko suñ borom wax ni foog ngay jaar moom la tegoon ci kaw loolu itam bi koy ko defee gis nañu gouverneur convoqué nag ay yoon yoo xam ni li ko yàlla digal bëgguñu woon moom mu doxal ko mais au contraire li li gouverneur doon digle loolu la bëggoon sëñ bi doxal lool moo indi problème loolu bokk na ci problème yi indi li am ci kon loolu bokk na ci lu fekk ko Mbàkke Baari di ko di ko woo di ko convoqué lu nekk ñu dugg ci ñu koy nettali nag nettali bu bu kii daal euh, bokkoon na itam ñoo xam ne daan naan ko boole gouverneur ci ci liñ xam di ko wax ni kii sëriñ bi daal dafay dajale mbooloo loolu nag bokk na ci liñ ko convoqué cinq septembre ba jël ko déporté ko au waaye am na beneen sabab boo xam ni euh, sëriñ bi ci boppam moo bëggoon am yenn benn yenn grade yi xam ni euh, grade yoo xam ni comme fii saxaaba yi tolloon mu ñaanoon ko suñ borom ba suñ borom teg ko nag jox ko benn challenge ni ko lii nag boo ko bëggee lii la laaj mooy boo bëggee egg ci euh, grade bi lii ngay def ay épreuve yii ak yii lay lay tëddee looloo tax itam moom si boppam da koy wax ni même boo déggee bi muy dem rek ci baytu asiru ma al abari in asiru wa zannal idaani onaka asiru nga xam ne moom sëñ bi mi ngi dem comme un prisonnier ñu ngi ko jàppee comme koo xam ne un prisonnier la waaye moom moom nee na ñuy jàppee loolu ni que man prisonnier la xëy na dañoo xamut waaye boobu mi ngi ànd ak waa ahlul badri moom di dem c'est ça veut dire que donc sababu baatin boobu da ciy waaye lii nag mooy li ma wax rek am na sabab boo xam ne zaahir la am baati kon loolu boo xoolee donc fii fii fii réew mi toll ak réewu Afrique sax fi toll màggal gi sens bi ak porté porté bi day gën a indiwaat pour nit ñi ñu war a gëmee seen bopp dëggal seen bopp am vision ci li nga xam ne lool loolu la ñuy def te Serigne Touba gëm boppam boobu da ko def dëggal boppam da ko def vision tamit mooy vision wu l'islam mooy lim ne woon xaadim rasul la bëgg a doon ba mu jaral ko lu ne mu daj ko ci te ba muy ñëwit garaat xaadim rasul loolu li ko indaale ba mu mat moo tax tey euh, fi màggal gi toll wax dëgg yàlla loo ci xool rek ci luy euh, may nit moomeelam am na ko loo ci xool luy ubbeeku ndax bu ñu demee ba ñëwit dafa baal ñëpp am na ko loo ci xool ngir dajale am na ko mooy sensu màggal tey da nga fi fekk ñëpp di nga fekk këru diine yëpp di fi fekk réew mi àdduna ñëpp di leen fekk ñuy wax lu baax di ko defante kon loolu yaakaar naa liy suqali ak réew ci wàllu jàmm ci la bokk waaye au delà itam ci wàllu économie boo xoolee màggal gi li muy sens bi ñëpp xam nañ li muy jur euh, un mois avant màggal ñëpp xam nañ ni muy économie ñi ko jàng xam nañ ni dafa laaj li koy stimuler waaw te te te màggal gi bokk na ci liy stimuler économie Sénégal ba xam ne macha allah at mu jot euh, Sénégal di gën a jëm kanam donc euh, en résumé daal wax dëgg yàlla màggal gi sens bi ak ak portée bi diine lal na ko lu baax jàmm yooyu mën nañ ni lu am solo la ci màggal gi. sëñ bi dafa woote ngir ñu benn benn benn nag ci ñaar lay féete ñenn ñi moom dañoo war a féetewoo maanaam defaru ba xéwal yooyu ñu mun ko utilise ci ci lu ci lu am solo ñu koy defaree defar ko ba mu sell ndax euh, sëriñ bi loolu la waxoon màggal gi dafa woon nit ñi ngir ñu jaamee la ko yàlla waaye nag njëkk ci benn donc xéwal yooyu ñu ko mën a defaree ba mu sell te mu ci ayib rek loolu ñëpp ci war waajal ku nekk maanaam waajal ko ba nga xam ni di nga ko yëgeew di nga ko yëg di nga am yëg-yëg boobu benn bi sopp itam màggal jaamu yàlla nga xam ni. naka jekk tubaa bi ko sëriñ bi di rëbbi rëdd itam li ko li ci jublu woon lépp mooy jaamu yàlla jaare ko si sunnas yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu itam mooy euh, fonk alquran fonk xaside yi comme niñ koy def animation culturelle bi ci am ak euh, nit ñi sociale bi ñuy dund xam ni ñu bari nañ ci gëj a gisante ci gisee waxtaan ci yooyu yëpp ci bis bi yaakaar naa lu ci lu ci am solo la ak ziar yi nga xam ne dañ koy def ak ñaan yàlla ndax lu toll nii ak liñ fiy jàng ci alquran ak liñ fi teral nit nit ñëw si war nañ ci profiter mën a ñaan suñ borom ngir mu dolli leen dolli leen jàmm dolli leen xéwal dolli leen itam yërmande kon ci biir màggal gi jàpp naa ni yooyu mooy yi nga xam ni mooy yi ci ëpp solo te kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo liggéey bi yaatal ko ci seen i ci seen i discours jërëjëf jërëjëf mbokk yi ñoo ko déggandoo ci li nga xamante ni mooy euh, liggéeyu comité d'organisation bi ci wàllum communication euh, ci wàllum euh, comité bi nga xamante ne moom moo géré wàllum assainissement mais ñi nga xamante ni ñoo géré hydraulique ak électricité dëngan kaddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko naam am na ay jéego yi nga xamante ni nguur gi def na ko naam am na yoo xamante ni peut-être ay jéego la yu ñu amal ren jile waaye tamit ñàkkul mu am ñi nga xamante ne ay manquement la rawatina ci wàllum assainissement ndax Touba ko wax wax inondation ko wax wax euh, taw bi nga xamante ni euh, ren euh, màggal bi tombé nag li nga xamante ni moom mooy le mois de septembre ak mois d'août donc à cheval entre ces deux mois là donc muy période yoo xamante ni dafay bëri ndox lool dëgg la gouvernement bi def na ci ay wàllam def na ci liggéey bu am solo mais nañu jàpp ni ci li nga xamante ni ñoo ko comité d' bi liggéey bi am na lu bëri loo xamante ne des na te yaakaar naa war nañ ci mën a gën a góorgóorlu ndax lu yi ñu année yii di ñëw euh, ñu mën a amal euh, liggéey bi comme ni nga ko waree alors euh, ci loolu de di leen gërëm di leen sant yéen ñi safoo di ñu seetaan ci seen chaîne leader Leral TV ak Leral point net fii ci Touba Grand Magal de Touba édition 2023